yëpp moom la ñu xëyee euh, muy visitu Euh, leaderu Yewwi foofee ca Ziguinchor dem nañu euh, ñoom Khalifa Sall ak ñeneen ak ñeneen euh, Mame Diarra Fam y compris dem teew foofee ca Ziguinchor ngir présente seen i condoléances xale yi nga xamante ni jot nañoo ñàkk seen bakkan ci manifestation bu mujj bi le 17 juin mais également kàddu yi nga xamante ni yëkkati yëkkati nañ fa ginnaaw seen njaal ñu dégg ko ci Khalifa Sall ci boppam mu ne dinañu déposer plainte te it dinañ sàkku à ce que yoon def liggéeyam ci xale yi nga xamante ni faatu nañu kenn tegul fenn ci yoon euh, ci anam bi nga xamante ni génne nañu àdduna xam nga dèjà yoon yoon liggéey bi mu war a njëkk def mooy ñoom ñooñ di wax yëpp à part Khalifa Sall jàpp leen tëj leen kaso bi lu tax très bien Barthélemy daa rey mi ngi xaar procès Ousmane Sonko dañ ko jiiñ fi yow mi ngi xaar procès Habib Sy détournement maanaam sàcc escroquerie 28 millions mi ngi xaar procès Mame Diarra Fam barki lañ ko baal pour manifestation ñoom ñii ñoom ñooñ di wax yëpp laa wax de xale yooyu dee seen responsabilité la ñoom parce que ils les ont fait participer à une manifestation interdite ba moo doom am ci benn ñaareel bi mooy dama bëgg population bi déglu ma ñu relever incohérence pour wax ne ni carrément ñi du du jaale moo leen yóbbu c'est-à-dire au fait dañu nekk joggi ci ay néew pour parfaire leur politique dama lay jox exemple bu ndaw mm. gis nga fii département de Pikine Pikine Ouest am na benn xale boo xam ne jàmbaaru Pastef la woon dafa faatu ba muy faatu mission Pastef la nekkoon maanaam ci mission Pastef la demoon demaloon maire ba foofu noonu amul benn leader Pastef bu ñëw foofu jaar te rakku Akhenaton la Ousseynou Seck. Akhenaton mooy kan moom. Ousseynou Seck. Hmm. Ousseynou Seck bokk Pastef booy bi bokk Pastef daan ànd ak le maire liggéey liggéey bu bu mucc ayib ci élection yooyu noonu xoolal amul bind ñu sax ne ko ma masawu seen famille ma xanaa Akhenaton magam. ah mais mun nañu ko bu tey doo ko yëg. maa ngi ñëw non ma maag booy bi dëkk xam naa si suba laa dëkk. comme yaa baax li ma wax benn ñaar bi mooy incohérence bi nga xam ne bëgg naa ko wax ci seen dem bi foofu dama dégg xale boobu di mel ni tubaab bu dof tam bokk pur rek xaw jàpp ma turam xaw ma la sant xaw ma yow yaa ngi ne d'abord dañ def autopsie. kan Cheikh Tidiane Youm. waaw très hmm. euh, complexe la c'est-à-dire man dama bëgg africain bu nekkee africain mu xam ne africain la. sénégalais boo nekkee sénégalais nga xam ne sénégalais nga. ah mais du tax maanaam non xam na li may wax. bu jàngee du ko wane. waaw jàng mooy lan. ah mais bu jàngee da koy wane nag. dara nag dégg na xaaral bu jàng ku jàng na wane ko nag. waaw loolu moom du cas. non ma ne yow jàngoo déedéet lu ko moom fu mu ne lu ko neex lay waxee ci réew mi. non ma ne ndax yow jàngoo. ma ni ma jàng na. waaw booy wax olof da ngay xam ne olof ngay wax booy wax tubaab nga wax tubaab. waaw mais su ko neexee loolu daal ma koy waaw loolu da koy mën ko cee blâmer mu bañ ma mu bañ ma nga nekkee nag waaw nit ku nekk fii lu la neex ngay waxee moom moo wax ni mm. xam nga bañ defee autopsie mm. ñu génn résultat autopsie bi mm. famille bi ñoo ne. Mm. d'accord ñu ci autopsie bi. procureur ne leen. Mm. nangu nañu def contre expertise. donc ñoom la ñuy wax foofu noonu ah. Mm. waxi naxa sa xandang la. ak waxi naxa saale. te loolu naa ci ñëwaat benn ñaar bi mooy c'est-à-dire que ni yow nan nga mën a waxee ni. on demande une contre expertise ñeneen jëli nañ seen borom xam-xam bu ñëw ba pare xaw ma loolu kooku nan lay def ba ëpp xam-xam. suñu suñu suñu suñu digne médecin yi nekk Sénégal légiste ah, mais yow nan ngay waxee ni nan ngay waxee ni laaj contre expertise ba pare. nga bëgg ne nga bëgg attaque nit ñi ci liñ téye néew yi cest à que il faut ñu wax benn lan lañ soxla fa la famille a demandé une contre-expertise yaa ngi day baax ne moom ñoom ñëwaat demande une autre contre-expertise mais lu ñu leen di joxee néew bi mënuñu leen ko jox mais boo xoolee seen communiqué bi mu bind dañ ne dañu re maanaam rétention bañ a jox arbitrairement néew yi la famille donc état mun maanaam la justice ne pas donner les corps tant que la famille demande une contre-expertise voilà bu fekkoon dañoo rob ba pare ñu war a demander ñu génnewaat corps bi dans ce cas mais moment yi délai yu gàtt yi nii boo fa dencee nit xam ne day yàqu décomposition la nekk donc tey jii euh, li ma mën a wax mooy man si demeure convaincu que la amoon mars mois de mars moo amaat Casamance. c'est la même opposition qui tue les mêmes manifestants. déet maa ko wax fii. waa xaaral nag gis nga nag dafa yomb trop yéen waa benn bokk yaakaar tey jii jàppoo ni bu ngeen autorisé woon manifestation bi comme dañoo nekk ci dëkk bi nga xamante ne suñu constitution dàqul li mm-hmm. nga xamante nga xamante ni ñooy seen xam-xam sax mm-hmm. loolu dafa nekk lu nga xamante ni ko de gisuñu fenn ci constitution foo xamante ni xaati nañ fa benn ni manifestation nit amul droit def ko fi ni mel ñoom nag indi fi ab excuse que dañoo nekk ci période pré électorale rek loolu code électoral bi da ko yooyu noonu propagande leen mel ba tax xale yi génn tey ji ba am fa li nga xamante ba ñàkk fa seen bakkan jàppoon ni tey ji ngir bañoon lii nii yëpp am lu tax tey jii waa euh, yeew yi jàpp ni ñoom ils sont en partie responsables c'est parce que ni manifestation bi autorisé wu ko buñ ko autorisé woon doo am xam faatu nañ ñoom dañoo jàppee sénégalais yi ay dof ci naka man dama bëgg di leeralal sénégalais yi n'est-ce pas sénégalais bu nekk am nga droit circuler librement constitution moo la ko may waaw ni mu la mayee nga circuler librement noonu la mayee euh, euh, nu mu tudd sax préfet benn bis di nga xëy war a jaar fi mu ne la mënoo fee jaar parce que yoon moo ko may. dafay am dégg baax waaye ñoom li leen wax bu leen fi jaar rek ñoom nag li leen tere ñu ne bu leen fi jaar daa bari maa ngi ñëw waaw maa ngi ñëw dina bëri dina bëri parce que li ñuy yàq moo bëri maa ngi ñëw rek constitution moo maye ne citoyen bu am lu meeting nga bëgg manifester nga def déclaration de manifestation yoon moo leen ko may yoon moo may préfet ne ko bu naree am trouble à l'ordre public boo xam ne yow xam nga ko te ñoom xamuñu ko nga tere ko ñaar ñetteel bi mooy le préfet n'a pas à s'expliquer devant Khalifa Sall le préfet il prend sa décision lam xam ba tere leet ba tere dara moom moo ko xam xam ndax yaa may déggam de c'est-à-dire le préfet n'est pas obligé mu lay wax naan noo trouble à l'ordre public bi ma bëgg wax mooy euh, manque bu dañ ko jàpp fee ak pistolet factice wala Assane Seck dañ ko aussi euh, nu mu tudd sax Assane Seck dañ ko non il n'a pas à t'expliquer cela ñaar ñetteel bi mooy c'est-à-dire que opposition dama am problème quoi c'est-à-dire je ne me pas c'est-à-dire lan la ñuy casse quoi au fait maanaam li ñuy manifester lan la que man dama jàpp ne réew mi conseil constitutionnel maanaam bu bu bu dogalee dara nga nangu ko nga ñàkk koo nangu. dafa mel ni sàcc bi nga xam dem na taxaw fee buntu bu kanamu président euh, juge bi yow nga nangu li juge bi di wax ak nga ñàkk koo nangu xam lu la yoon may nga def appel. gis nga appel dafa am fu mu yem foo xamante ni boo demee boo xam yem foofu mënutoo def appel da nga dem tëdd conseil constitutionnel loolu la mel maanaam conseil constitutionnel bu waxee amatoo pour naan ay damay lo ngay wax a wax a wax a a wax ba moment bi ngay waxee ñu changé constitution bi ne léegi nag may nañu nga dem dox jiwaat beneen beneen beneen recours pour naa ni bañ ñàkkee pexe dem nañ ci casserole yi casserole doxatul léegi ñu ngi ah, jëmaat ci kay dox na nag moom ñoom seen bopp xam nga yaa ngi koy koy waxal laa wax xam nga Ousmane Sonko daa toog il demandé trois fois le volume que li njëkkoon am trois fois le volume il n'a même pas eu le tiers ba volume bi mu njëkkoon am parce que sénégalais yi ñoo sonn seen i wax. ñuy ñëw ci casserole. voilà man dama nga taxaw ci foofu noonu le mhm. ko am. et que mhm. de Dakar à chaque fois opposants yi bu ñu bëggee li nga xamante ni di manifestation c' est vrai que nag dañ leen lu ci bëri daanaka sax boo saytoo li ñu autorisé ci manifestation moo ëpp foofu li nga xamante moom la ñu rejeté. Mhm. Eh, ci nguuru président Macky Sall bi loolu day wane ni peut être que toujours en démocratie. Euh, ci période euh, campagne. Euh, pré campagne pré campagne. Hmm. dëgmal li nga xamante ni moom moo di législative yi. Hmm. ñoom ñu rejeté seen liste ñu gis ni dañoo subir li nga xamante ni moo di injustice. je pense que ni waroon nañ leen bàyyi ñu manifester pour éviter autant de morts. injustice xam mooy la gis nga parti au pouvoir def meeting ci pré campagne bi bu fekkoon dañoo autoriser parti au pouvoir tere leen ñoom nga ne maanaam li ngay gis sax bennoo nekk ci mbedd mi. nekk ci mbedd mi laa wax. ci place de la nation. naan damay day manifester bëriwul. ñoom boobu ba léegi. ñooy conférence de ah, presse waaw ñoom. la moo leen métti ba ñu manifester est tey ñoom newuñu def point de presse. merci waaw defuñu ah. defuñu. Euh, ñoom man defe naa ne chaque semaine ñu def point de presse. loolu baax na nañu wax ak population bi. Ah, mais yoonu réew mi moo wax ni pré campagne pré-campagne mais ñoom li ñu leen bañal ci xaaral rek ay manifestation tey jii waa Benno yéen ñi nekk euh, la mouvance présidentielle waaw manifesté wala mais dama ni tey jii bu fekkoon yéen la duñu leen ko bañal parce que yéen yéen a ànd ak président Macky Sall c'est-à-dire yéen jaay doole gi nga nekkee nag grand gis nga nag ci réew mi nag il faut nag tudd ko nag président Macky Sall dafa waroon def tournée économique war a dem def lu amal solo askan bi mooy dem inaugurer hôpitaux et consorts da ko mujj bàyyi parce que loolu lay bañ comme li ñuy wax ni loolu lay bañ. moom dafa ñàkkoon jore dafa ñàkkoon jore rek daal dama lay bañ xam ni bu bëggoon def moom préfet la la yàlla bindee noo yi lépp mais nag dama lay wax Penda gis nga un la loi dans un pays ça ne négocie pas gis nga yoon moo tënk ni Mhm. pré campagne amul génn di wax. gis dégg naa leen nag ñu naan ay euh, voilà donc nuñ mën a waxee ni dañ ay propagande mais yow ñoom li def lan la waxuñ ci liste électorale waxuñ ci coalition Yewwi Askan Wi donc li ñuy def du politique politique la yoon da koo tere benn mooy violation des dispositions du code benn ñaareel bi mooy Ousmane Sonko ñi ko wër xam nañ ñi c'est onze personnes qui ont été arrêtées ñoom lañ doon liggéeyal xam nañ ko daf daf lu moo fi nekk rek xam nga donc maintenant loolu préfet amoon. Euh, la veille des manifestations ba ne risque de trouble à l'ordre public mais loolu préfet amoon na ko après lañ xam ni onze personnes étaient arrêtées ak ay cocktail molotov ay pistolet ak nangam sangam donc loolu laa la wax ma ni préfet léeg-léeg mu am information yoo xam ne yow doo ko am man du ma ko am il interdit quelque chose parce que il est il est au cœur des informations maintenant nag léegi bon voilà bu teree dara li war li la war waat li la war yow war ma man war Ousmane Sonko Khalifa Sall ak euh, mu tudd Aminata Touré ah président Aminata Touré mooy tey ñu nangu ñu ñëpp ñu tënku si nous sommes des républicains ñu tënku ci li yoon wax mais bi nga xamante ne annoncé ko laata Khalifa Sall sax ak plainte bi nga xamante ne jibal nañ ko démb foofee ca Ziguinchor a rappelé que ni même Mame Diarra Fam également bi mu génnee prison wax na ne moom it dina jébbal ab plainte parce que dafa jàpp ni détention arbitraire lañ ko euh, defoon et que loolee àndu ci benn yoon man très sincèrement ay waxi Mame Diarra Fam duma ci soli quoi. da nga dëkk Pikine. non du ma ci sori Maam Jaara dëkk Thiaré sori. ma wax Maam Jaara a wax mooy. Eh, nag Maam Jaara dafa am base am fa doole. xale jox bu tere bu mu wootee conférence de presse a génn. déjà xam naa ne moom base euh, de la ville da loolu moom man waxuma ko mais dama ne la dama ne que voilà man Mame Diarra Fam très ay waxi Mame Diarra Fam man bëgguma ci sori. Mhm. pourquoi pour la simple raison que politique day def comédie maanaam comédie show lay def man moom très sincèrement. Euh, je suis dans dans des débats plus structurés et plus trucs bon voilà mais Mame Diarra Fam moom bon voilà xam nga ñoom déjà chaque fois nga dégg leen ku doy ni Mame Diarra Fam représenté fii ñi nga xamante ni ñoom ñoo di la diaspora assemblée nationale di amal liggéey bu am solo di défendre li nga xamante ni moom moo di les Sénégalais de l'extérieur ñu jël ko keroog patam patamee ko nii ci vidéo yi nii ñàkkal ko nii xorob nii jël Mame Diarra ku doy ni Mame Diarra Fam keroog ñu waa benn jaay ko euh, euh, yoonu yoonu Sénégal pour man dañ ko war a soppar mi sax ñooñu liñ leen jàppee laa waruñu woon génnaat parce que dañ leen tere manifestation ñu manifester ba mu am mort ñoom manifester wuñu ku nekk da demoon di seet say mbokk maam daa dafa dem seeti xam nga loolu ca place de la nation lañ di fekk ñoom ñëpp jàpp leen mais kenn fekku leen ca place de la nation Ousmane Sonko déjà dafa ne kenn ku ne musul am ci beneen présidence waaw dama la wax xam nga fuite de responsabilité mooy wane ni euh, wax dëgg yàlla booy di ànd ñoom amuñu chance ñoom dañ ne. Mm. kenn ku ne fa nga nekk na nga fa manifester pap seen benn naataango. Mm. Euh, bu Dakar matin. Mm. bon man très sincèrement bëggatuma di wax turam. Pape Alé Niang très wax turam. non man lorsque quelqu'un est maudit. bëgguma di wax si. Pape Alé Niang il est maudit. il est maudit. Pape Alé Niang mi nga xam mu ngi toj ñëpp di ko ku xëy ku xëy ma euh, ma na ma tontu nit ku nekk boo xëyee la matin loolu njëkk def mooy dem cliquer sur Dakar matin dama ko ñaan ne ko nga ne il est maudit dama ko ñaan ne ko na ma tontu journaliste bi xew si jamono dama ko ñaan ne ko na ma tontu je lui ai posé une question ba keroog may toon damay bàyyi wax ci moom mariage yu góor jigéen ñi amoon mbaaw moom ban rôle la si joué woon ndax nekkuñu woon di ko tuddee bàjjenu milieu wala tantey milieu quelles sont ses relation avec Jean Rodriguez quelles sont ses relations avec Atoumane Ndiaye na ma tontu ci loolu. mais du la tontu bu gisee ne yow li nga wax ne amul bopp amul génn kay du la tontu. amul bopp lan. la ma tamulee tontu. xam Sénégal fi nekk. taxi hmm. nit d'homosexuel mu ne du la tontu. ça porte atteinte à ta dignité et à ta ku siiw nag foog ñu wax ci yow. man maa wax. kon moom waaw moom dama dama dama ne. moom mun na la bañ a tontu parce que moom moo siiw. non mënu ma kon il